dem ci jàmm wota ci jàmm résultat yi ku gagné ñeneen ñi am sportivité am esprit fair play gërëm la sant la félicité la population bi nag ma di leen appel au calme di leen woo aussi ñu dem inscrire massivement sur les listes électorales ma di leen appeler aussi ñu récupérer seen carte d'identité yi ñu retirer ko parce que bo xolé ci arrondissement yi du ci ñun rek bari na ay arrondissement yo xamné bo fa démé di nga fa fekk carte d'identité yu bëré bëré bëré ñu nga fa seen borom duñ fa jaar duñ ko jël ci par contre gud la ñuy ñëw par contre gud la ñuy ñëw léeg semaine bi nga joxe ñaar léeg semaine bi nga joxe ñatt lé am semaine yo xam sax lé sax do joxe dara té pourtant carte d'identité yo ñu ngi koy ciow nan sun carte d'identité gennul gennul gennul gennul gennul carte d'identité yu bëré bëré bëré genn ñu ci arrondissement yi defa tagué donc yooyu nañ ko récupérer seen borom nañ ñëw jël si ko ñi xam ne dañoo war a bindu ñu dem bindu ji te retirer seen carte d'identité bu élection jotee ñu dem def seen choix dans la paix dans la sérénité et dans le calme dem toog seen kër xaar résultat ku gañu ñu félicité la man daal appel boobu laa leen di lancer waaw